nag euh, tey ñu ngi nii seq kon waxtaan ak euh, le capitaine Oumar Touré officier wu gendarmerie nekk tamit euh, section bu recherche bu gendarmerie bu Colobane moo capitaine maa ngi lay nuyu. waaw laaj bi nga xam ne nag dañ la koy laaj daal toog nañu ba dégg ne da nga tekk sa ndomba tànk te ñu ne. dossier wu xale bu jigéen bii di Adji Sarr ak président Ousmane Sonko yow lañ ko joxoon lan moo waral nga tekki sa ndooma tànk. effectivement moom nag da nga may permettre. nuyu Sénégalais surtout ma nuyu sama maam Koumba Touré xam ne mu ngi village. maa ngi nuyu aussi sama pap ak sama yaay. comme je vous dis il y a de cela huit ans je suis à la gendarmerie je suis de gendarmerie. voilà j'ai deux ans à la section de deux années que la section de recherche j'ai rédigé ou corrigé. plus de cent procès-verbaux. Wow. Malheureusement, je tiens à témoigner ceux qui la section de recherche. Malheureusement, c'est l'affaire, dans l'affaire la plus simple que ma crédibilité a été remise en cause. A été remise en cause. Donc, ce qui fait que, aujourd'hui, je pense que j'ai le droit d'informer les Sénégalais pour ñu yëg ko mais lii moo tax ñu may topp ñu may déglu ñu muy xool samay déplacement en fait gis nga. balaa may egg si lii gis naa dem naa rencontré sama commandant ma expliqué ko ne ko mon commandant moom xam na ma il me connaît très bien il a entièrement confiance en moi et sa jeunesse d'Ingor et je ma parole c'est la tienne je lui moom dit mon commandant yi ñu may topp te ni ñu may toppee xam naa ne dañuy déglu parce que dañuy anticiper samay mouvement Donc s'il continue comme ça, je vais démissionner. Moi, je n'ai pas besoin de prouver à quelqu'un que je suis crédible. C'est-à-dire, moi, c'est principe. Moi, la crédibilité. Donc, je ne prouve pas à quelqu'un que je suis crédible. Je le suis. Point. Maintenant, je voudrais expliquer la raison de, de cette démission. xam nga lu tax ma jël décision ak sénégalais bu ma publier sama démission sama page Facebook ay autorités gendarmerie woo nañu ma mënu la wax ne que yow sa page Facebook que dañuy ko piraté je ne sais pas le haut commandant qui m'a appelé ni l'université des avec qui j'ai de très bonnes relations ñu nga wax ne dañoo piraté sa compte ma ne ko non ça c'est moi qui l'ai me sentais donc c'était c'était parce que bu ma woowee li ma wax ne naa wax ne que dañoo piraté sama compte ma ne non je lii man maa ko bind mais ba léegi waxuma dara mais lendemain bi mooy le lundi on informé que dafa am benn docteur bu ñëw sama bureau pour constater ne que j'étais en état de démence cest à dama def quoi pour xool waaw gis nga loolu pour man c'est remettre en cause noonu l'intégrité de la gendarmerie am nga booy xeexal daal bul ko wan Sénégal bu ñu ñu xamee foo dem dafa egg donc il créer ce qu'on la diversion je suis parti à Mais l'objectif de cette vidéo, c'était pas pour faire croire aux Anglais, euh, c'était pour faire croire aux Anglais j'étais à Touba, qu'on il allait me chercher à Touba. xam naa ne foofu la ñu may wër bu ma leen wéyalee maa ngi Touba. donc c'était ça l'objectif de la vidéo. léegi ñi la doon ñi la doon topp ñan la. léegi ñi ma doon topp mooy waa renseignement euh, il y a ce qu'on appelle les renseignements c'est-à-dire vous n'êtes pas trop développé c'est-à-dire vraiment bëggul aussi dem ba divulguer beaucoup de choses mais xamal ni. si l'État du Sénégal qui a engagé des personnes yoo xam ne ils travaillent ñu may topp c'est-à-dire mu jógee c'est quand le procès verbal de Adji bu ma defee sama enquête ba pare man ak commandant buy def enquête yi woo si bureau jox ma enquête bi te bi aussi dire moom bu mu koy def defu ko ndax Euh, man fii laa dëkk Boston laa dëkk c'est parce qu'il a confiance en moi et il sait que je n'ai jamais été partial mais nag toutefois saa yu ma ne jàppale nit te yàlla tax dama koy jàppale c'est-à-dire tout le temps quand je sais à ce que la personne ne subisse pas l'injustice je parce que moi c'est ça mon principe Adji Sarr bu ma ko bu ma commandant boolee ak moom ne ma demal déglu ko xam nga lan la ma njëkkee wax mu ne ma tonton est-ce que lii duma créer problème kaamil baa ngi balaa may commencer am damay may c'est-à-dire man kenn xamee wu ma caaxaan je suis un très bon musulman ma ne ko lu la ngay posé loolu mu ne lii mu ne lii est que sama patron ko yëg ma ne ko kan mooy sa sa patron mu ne sama patron mu ngi hôpital Fann quoi ma ne ko ma ne ko pourquoi mu ne ma bu ko yëgee dinaa am problème donc bu nit di porter plainte c'est-à-dire le premier opposant de l'État africain di la laaj est-ce que patronat dina ko yëg est-ce que bu pensez que nit ku conscient dina wax loolu ensuite au cours des auditions bu ñu commencé auditionné ba pare ma ne ko ma ne ko ajo jox ma sa carte d'identité xam nga loolu jël auditionné nit vous prenez d'abord sa pièce d'identité nga ñëw nga nga nga nga enregistré ko. alors nga enregistré d'abord son nom ensuite vous demandez la personne de de de vous dire de son père de sa mère et tout ça. mais dans toute son audition lu mu di bëgg laaj ma ko fii nag bu ñu commencé dañuy dem ba pare. Adji Sarr génnaat Adji Sarr après quand j'ai fini avec Adji Sarr euh, il fallait maintenant entendre un de ses amis euh, Sidi que j'ai entendu Sidi bu ma ko dégluwee ba pare. ils sont sortis il y a le capitaine Diouf ngi si bureau bi ma expliqué ko ce qui s'est passé après mu mbay bi Sidi Mbaye bokk si léegi avec les questions qu'on a bu ñu paree Mbaye aussi il a eu peur parce que le capitaine a posé des questions rigoureuses mu génn et que capitaine parce que dañ ko woowoon si dinoor affaire léegi Mbaye aussi quand il a fini il a signé le PV il revient vers moi il me am problème yàlla moo ma ma est-ce que duñu si am problème ma ne ko bu fekkee ne li ngeen di wax am na il n'y a pas de souci ma ne ko ici les gens sont impatients léegi quand j'ai fini avec cette fille je suis parti j'ai appelé euh, la patronne mooy la fille la femme qui s'appelle Hadina ma ne ko madame où est-ce que vous êtes je suis à l'hôpital de de de, de Fann ma ne ko mënoo ñëw ñu entendre mu ne ma non non euh, mënuma fa ñëw sama doom et là j'ai accouché d'un enfant prématuré de 7 mois. Donc je suis hospitalisé te l'enfant a de ma chaleur. Donc faut me la. après genre yooyu je ne je ne tergiverse pas quand une personne me dit ça que mu ne ma dafa am benn benn situation boo xam ne da koy très déplacé j'ai demandé la permission au commandant ma dem fekk ko foofu ma entendre ko j'ai constaté sur place effectivement que j'avais ça mais Ndeye Khady Ndiaye aussi expliqué ma yëpp ñu pare ñu def Euh, quand on a fini les auditions et tout ils m'ont expliqué de toute façon les PV d'audition jarul ma koy wax Sénégalais yi yëpp gis nañu ko quand j'ai fini donc là il fallait convoquer l'honorable député Ousmane Sonko pour mu ñëw après avoir entendu tous les témoins fait tous les actes je aussi revenir sur un fait gis nga y a eu des prélèvements parce que Adji Sarr bu ñu ko entendre ba pare ta c'est-à-dire il fallait l'amener à l'infirmerie pour ñu examiner ko xam nga nit bu waxee ne dañ ko violé dañ koy yóbbu souvent le médecin regarde et j'ai demandé à un gradé de l'unité mu jël ko yóbbu ko yóbbu ko à l'hôpital principal pour ñu xool ko mais il s'est trouvé que au lieu de l'hôpital principal ils sont partis à l'hôpital général de Grand Yoff en général on va là-bas que la fille dans son audition lenn loo xam ne neenam moo ko bindee que moom guddi gi dañ ko jël yóbbu César tout ça les gens dem ñu yóbbu ko foofu on l'a mis sur une table ñu xëccal ko ay affaire après def ko si affaire denc donc je me suis dit que ce qui s'est passé c'est que c'est le prélèvement de la mine donc ce prélèvement là il n'est pas il n'est pas crédible parce que quand on prélève avant la réquisition donc la preuve là parce que après xamoon loolu fu mu jógee donc ça c'est une qui peut être mise en cause en tout cas à la section de recherche connaissant et toutes les personnes qui travaillent là-bas. Personne n'est jamais venu à la SR, en tout cas à ma, pas à ma connaissance. mais vous aussi, SR nit day ñëw nii fekk xamuñu la nii la dañoo sàcc léegi sama moto commande naa ne la jëlal oto léegi léegi topp ko on part on règle problème on revient quand quelqu'un vous dit que j'ai été violé. xam nga violé c'est violer la personne humaine quand on vous dit que

xam naa il a fallu faire croire que kooku moo ko kooku moo xam li mu daal li ko daal ba pare. c'est toujours c'est ça c'est toujours dans les manipulations que kenn kenn moo ko war a wax ne médecin bale xam na lu xew nañ ko yóbbu foofu moom mun na def. sinon non normalement on amène à l'hôpital principal. les auditions il nous fallait il fallait euh, amener une convocation pour l'honorable député Ousmane Sonko. j'ai pris la convocation j'ai pris mon véhicule je l'ai écrit d'abord en SMS. ne ko bonjour honorable député Ousmane Kossou, je suis le capitaine Touré, officier adjoint à la section de recherche. On a reçu une plainte contre vous et on m'a chargé de vous joindre pour les besoins d'une convocation. Il me répond pour me dire que j'habite à la cité Gorgui, je me rappelle pas cité Gorgui waaw mu jox ma adresse bi. Le lendemain, je l'avais dit que je viendrais à 10 heures. À 10 heures, je suis pas venu, il m'a réécrit à quelle heure j'ai pris mon véhicule, parti à la cité communale, qui l'a déchargé, je suis revenu à la section de recherche. Quand je suis revenu, c'était un le commandant m'a dit le procureur a demandé à ce que ñu arrêté ndaw si ñu arrêté ma ko ah commandant la femme là elle a un enfant prématuré de sept mois kooku mënul dem de ma ne ah j'ai informé le procureur léegi bu ma ko informé xam nga lan la ma wax def ma ne commandant yow sa xolu yurmande bi moo la sonal bi bu fekkee ne damay fen yàlla na ne il faut plutôt faire appliquer les principes de gendarme waaw comme xam na ko je suis parti j'ai exécuté je suis jeudi à la dame je l'ai même pas informé ah dama ko nee kaay bu mu ñëwee sama bureau je l'ai pas dit commandant bi ne doon jàpp la dama ko nee vous allez être placé en garde à vue donc comme on a remis une convocation au député Ousmane Sonko il devait venir et pour pour accéder à lui c'est-à-dire c'est pour vous expliquer en fait je ne parle pas de complot on a on a demandé d'arrêter la dame et quand on a demandé quand on a expliqué au peu de ce qui s'est passé a dit au commandant ce que je viens de dire j'ai convoqué la Mais avant la notification de la garderie, fekkoon na ni ndaw si je l'avais écouté quatre fois mais à titre de témoin parce que je n'ai jamais imaginé que mais toutefois je l'avais notifié tous ses droits concernant cette affaire boobu laa ko wax ne madame moi j'applique les ordres de mes chefs mais je vais vous appeler un avocat te avocat bu ma lay woowoon c'est pas un avocat xam ne mbirum xaalis lay toppee bu fekkee ne c'est le gars que j'ai connu à la fac qui se battait pour des principes humains humains xam naa ne kii il va faire son possible pour que la vérité se manifeste pour mu jàppale la vous avez compris c'est ainsi que j'ai appelé maître Bassirou Baldé qui sorti une fois en parlant j'ai appelé le maître il m'a venu dans mon bureau je lui ai expliqué sans pour autant aller dans les détails de l'enquête il fait son travail je fais mon travail donc après la notification de la La dame a demandé, après l'audition et tout, la dame a demandé à aller à l'hôpital. pour nampal doomam bi xam nga doomam bi c'est un prématuré. c'est donc euh, nee na le docteur lui a dit que l'enfant ne pouvait pas euh, vivre d'un lait artificiel donc il fallait le lait problème. vous avez donc je lui ai dit allons-y maintenant dès qu'on est arrivé à J'ai dit à l'avocat que cette dame, si elle se sépare de son enfant, l'enfant va décéder. Il faut qu'elle attache l'enfant avec elle. Pour moi, c'est ça la justice. ko Finalement, l'avocat est parti le lendemain pour dénoncer. Et la presse a mis la pression sur le cas. Les gens ont lâché. Parce que je me demande aussi l'erreur. Comment je n'ai aucune motivation politique. Dis que moi-même, moi université, je suis en mosuma dem voté man bu may inscrire liste électorale c'était juste pour avoir une carte d'identité parce que avec la carte d'identité CEDEAO il fallait il paraît que mënoon nga inscrire en na tam ñu ngi des bu leen manifester bàyyi leen ba vendredi comme je dama am stratégie gis nga état. Quand vous voulez un résultat, il faut demander plus grave. Même quand vous voulez demander du carburant à l'État, vous voulez 5 litres, demandez 10 000 litres, vous aurez vos 5 litres. Donc quand ils la démission, avec ce que je sais, ils savaient peur que la jeunesse nous suive. Ma wax dara ñu suivre donc ça a c'est pas dit que je la cause mais je sais que ça a joué. léegi moom dañu delluwaat euh, ginnaaw tuuti balaa ngay wàcc ci. waaw.

Sénégal fu ñu toll actuellement à cause de cette affaire il y a de personnes qui sont mortes il y a eu beaucoup de problèmes gis nga pourquoi j'ai demandé à ce que les personnes responsables démissionnent moo tax. pour yow complot la wax complot comme ni ma la wax encore une fois moi j'explique ce qui s'est passé gis nga bu ma demee ba demee sama démission donc j'ai besoin d'expliquer que ñun ñu yegg ko après je vais me rendre à mes autorités militaires ils vont faire la et merci. ce que je dis, je ne le problème. je vais de non oh, gis nga yaakaar ne man bu ñu may jàpp c'est-à-dire jàpp ma gis nga formation moo def moo gën a métti ay jàpp tous les responsables dans cette affaire ay une enquête doit ouverte ñun ñëpp ñu jàpp leen le procureur mooy li ma la wax comment on peut nit wax la ne xale bi sept mois la am nga ne ko non non yow sa xol yurmaale bu fekkee ne c'est un procureur de la République xam nga on est un procureur de la République pas un procureur du président de la République bu vraiment yaakaar naa ne bu ñu la waxee loolu war nga nangu mais nga wax loolu ba ñu dem hôpital on a créé un scandale là-bas hôpital je tout ce qui était à l'hôpital ba foo xam ne des enfants sont en réanimation là-bas ñu nekk fa di indi fa ay coow c'était vraiment triste. à mon avis xam ah, nga nag loolu damay bàyyi Sénégalais juge te man wax naa li may wax cest à bu ñu fekkee ne que man li ma wax nii ça vaut la peine que le procureur de la république démissionne ou que le ministre de la justice démissionne yaakaar naa jar naa vous savez le ministre de l'intérieur moi je considère que c'est un collègue du ministre de la justice normalement war na xam lu ñuy xew. non du loolu rek c'est parce que comme je vous dis mes principes ont été bafoués vous quand je suis un officier de officier de gendarmerie ñu may topp di guette si oui ou non je suis entré en contact avec une personne. PV bi tamit am ñu dindi. dañ ko dindi. wuñu ko dañ ko ne deful parce que le procureur nous a mis une telle pression qu'on ne pouvait pas terminer. ça je non am na lu des. y a des am na affaire yoo xam ne on l'a pas mis dans le PV pour l'honneur de la gendarmerie en fait. président de la gendarmerie, dans cette affaire, est resté long jusqu'à la fin. Vous savez, si la gendarmerie avait, avait, avait fléchi, le pays allait dépasser ça. Donc nous, on a été vraiment... C'est-à-dire, aujourd'hui, je me considère comme démissionnaire. Mais il faut accepter

que j'ai eu un contact avec Sonko, voilà, avec une personne autre, que peut-être y a certains avocats, je suis officier de gendarmerie, je suis un enquêteur, par exemple, maître Tal. Vous vous rappelez l'affaire de la drogue, là, les 675 kilos C'est maître Tal qui était l'avocat du blanc. Donc lui, c'est normal qu'on entre en contact, parce que c'est moi qui prenais du blanc. kooku boo gisee numéro am sama téléphone c'est parce qu'on parle bu fekkee du loolu mais je demande je me dis tous les sénégalais waxuma seulement la gendarmerie ou la police tous les sénégalais ku am preuve que dama wax loolu de manière très claire. Euh, en fait comme damay bàyyi sénégalais ñu tiré ay conclusions c'est-à-dire waruñu lakk suñu réew. si dans ces genres de détails. ku ku ñu violé ñëw. waaw porte waaw ah. ne baal yi ah. laa la wax gis nga comme je l'ai dit au départ moi j'ai établi plus de 1500 projets verbaux c'est l'affaire la plus simple de toutes les affaires que j'ai faites cest moo tax ma ne la boo buggee xam man maay kan il faut aller écouter les gens avec lesquels je travaille ñooñu mën nañu expliquer kan mooy capitaine Touré moi je ne pas violent. c'est moo tax comme ni ma la sama vidéo bu mu fuité tout ce qui ma ko des mu appelé mu ne ma ah mais mon capitaine yow yaa nekk si vidéo ah, gis nga booy boo bëggee dem fenn euh, bu ñu xam ne dem doo ko yëg moo tax yow bu ñu damay dem après SR c'est-à-dire moi je pense que ça qui sécurise comme nit dañ may topp di xool ne est-ce que xam naa dara xam moo dara je me dis bu ñu ñu xamee ne man dinaa wax dara mën nañu ma rey donc léegi ma wax. benn yoon di ma xam gis nga nit ñi di am na comment comment je regardais je je un commentaire je vérifiais les commentaires ma gis ko bind ne capitaine bi il a peur il est à Touba. vous savez quand vous êtes porteur d'un message rien ne le général de Gaulle quand il appelait les Français à résister il était à Londres il n'est pas venu se battre pourtant il est arrivé à convaincre les Français donc bu fekkee ne yaakaar nga ne yow li ngay wax mun na changer dara jël ngay dem xeex toogal deg nga wax ko bu fekkee changer na baax na bu fekkee ñi ngi gëmuñu la nga dem toog man nuyu sama maam te di ko remercier di ko gërëm lu bëri c'est-à-dire elle m'a des principes yoo xam ne mosuma bëgg ma wàcc la vérité c'est-à-dire li may def ni si elle qui qui me l'a inculqué donc ce qui fait que maa ngi koy masaw bu baax baax je sais que actuellement il paraît qu'elle a même organisé ay jàng kaamil foofu pour que je puisse vraiment yàlla jàppale ma mais je voudrais qu'elle comprenne que si li ma yare si loolu laa nekkee donc je ne suis que mon destin c'est-à-dire gis nga PV e affaire bi c'est c'était c'était mon mon destin c'est-à-dire on trois capitaines la SR commandant bi woo ma ne ma dama def ko donc bu fekkee dëgg dafa war a feeñ da ngay wax expliquer lu xew bu ma re bu ma reconvoqué demee wala nit interview moom fenn j'essaierai de dire la même chose je suis vraiment très honoré servi pour ce pays et merci je